li fi dajale tey dafay luy gën a rataxal suñu diggante Sénégal ak réew Maroc muy relation bu yàgg ambassadeur wax na ko léegi coopération bu am solo diggante ministère bi nga xam ne bii moom la ñu président Macky Sall dénk muy ministère de l'agriculture équipement rural et souveraineté alimentaire ak office chérifien des phosphates ci ay lëkkaloo yoo xam ne dox na suñu diggante bu ñu dimbali ñu ci ci xeetu engrais yoo xam ne yi dinañ ko mën a jëfandikoo pour suñu suuf bi gën a mën a baax ci wàllu mbay kenn réerewul mbir ne jamono ji baykat yi am nañu ay jafe-jafe ci wàllu engrais ndax njëg gi seer na gis ko sax jombul loolu nag moo tax groupe OCP nga xam ne bokk na ci group yi gën a am doole ci njaayum engrais ci ci àdduna mu teg ci suñu loxo ci réew mi may ñu fukki junniy tonn DAP ak juróomi junniy tonn TSP triple super phosphate Sénégal jël ko jagleel ko petits producteurs yi en plus ci loolu groupe OCP nee na danañu jaay lu toll fukki junniy tonn engrais waaye dañu wàññi njëg gi loolu nag rafetlu nañ ko lool ndax gannaaw relation yi muy gën a rataxal suñ diggante ak ñoom loolu dina mën a tax baykat yi gën néew doole mën a am ci engrais bi man cee jot dana wàññi aussi ci baykat yooyu charge yi nga xam ne danañ koy faral di jànkoonteeg bu fekkente ne dañuy bay mu daan jëm ci xaalis bi ñuy dépensé pour jënd engrais naam du leen doy waaye dana wàññi seeni charge ah fépp foo xam ne fi jëfandikoo nañ ko engrais bi ñu ngi xaar ci foofu production bi yokku di leen waxit ne lépp loo xam ne lii mooy suñu wareef danañ ko def pour que engrais bii nga xam ne bii toll na ci fukki junni ak juróomi tonne ñu fexe ba petit producteurs yi gannaaw ba nga xamee ni bii sax ñoom ñëpp jot nañ seeni notification ñu mën a jot ci engrais bi